ku ne xamni ni jigen yalla moko sutural jigen jambar la jigen ku ñu wara teral la jigen ku ñu wara a la jigen ku ñu wara sagal la ndax ñun go bu dul won jigen ni day duñu exister borom kër yi tamit li ñu mën ci seeni kër bu dul won jigen ni loolu du soti ndax li ñu mën rek moy xey dem outil daani doole waaye nag jigéen ñi lañuy bàyyi ci kër ga ñooy yar suñu doom ñooy defar kër gi ñooy togg kàll ba mu rafet ba mu neex ñëw taajal na ñoom ñoo ñuy jàppale ñun bu ñu tukkee jigéen ñaar ci gën ñoo ñuy xaar ci kër ga defaral nu ba mu baax kon tey maa ngi rendre hommage bépp jigéen bu nekk ci àdduna rawatina nag jigéeni senegal ñu baax bari jom bari ngor mëna a muñ teg ci di rendre hommage sama soxna di rendre hommage sama fans yi nga xamanteni ay jigen lañu yag ma bëgg yag ma soutenir yag ma supporter fi ñu nekk partout dans le monde ku ci nekk rek fekk naa la fa ne la jàbb loxo di la jaajëfal ci sa seen bés bu tedd bi di wax ni jigéen kat yàllaa ko teral yàllaa ko suturaal kon pour man benn bés sax tuuti na ci yéen pour man bés bu yàlla sàkk rek war nañ leen sargal war nañ leen rendre hommage ndax yéen a ko yello et looloo waral sax ci sama carrière sama album bu ma def rek dinaa ci jël ñaar ba ñetti morceau yoo xam ne jigéen ñi laa ko jagleel way leen ko ndax nag yéen kat gàcc ngaalaam kenn demul ngeen des kon bés bi du bésu kenn bés bi seen bésal te nag bés du tuuti borom lay tollool yéen la yéen la yéen la ay suñuy biddeew yàgg naa ko wax man yéen ku leen béggalul daraam du sotti yamatuma ci di sukkal waaw man dama leen di boot di leen tamtamey di leen kolkoley te lu ngeen soxla ñu wuti ko mu gaaw mu gaaw te gaawa gaawa gaaw a gaaw jërëjëf yéen jigéen ñi